tatouage di style boo xam ni bari na jamono ji ñu koy adopté moo xam ngay góor mbaa di jigéen ngir xam nag ndax ñépp ko àndandoo bëgg wala am na ci wàll bi ñu ko bañ loolee waral ñu daal di ñëw fii ci marché Liberté 6 dékk leen suñu micro. man moom wax dëgg fa yàlla góor du tatouage sama jabar man séquma ak sax góor sama jabar romb ko mu naan ko téye mignon ak téye bel ak wala nga ñëw naan ko ay sama jabar jeeg man sama jabar sama jabar la doon euh, mais daal xamal naa la ñaar bu bënnee làmmiñ bi te mu neex ma neex na ma bu persigné man jëm sax jigéen boo xamante nii da ngaa def ay wee monté ay lanti parce que jigéen da ngay mat sa borom kër seytaane euh, bëri na fi yenn góor yàlla yoo xamante nii dañuy doxaan li ñuy doxaan mooy seen jabar du pose ay we du def ay lanti du teg ay greffage yu jongoma bu nu gisee bu nu génnee ci mbedd mi gis xale bu jigéen bu ko def dañuy dem doxaani. tatouage bi nag. d'accord naa ci jigéen ñi di ko defal seen moroomu jigéen ñi mais d'accord uma ci góor di ko defal moroomu jigéen di ko defal jigéen. bu ko bëggee ma gunge ko. bu dee à vie bi. ma la wax xeesalub la vie bu ko bëggee laa la wax maa koy gunge parce que man zem ci xale bu jigéen boo xamante nii da ngaa xajam man damaa bëgg loolu mais xale bu jigéen boo xamante nii da ngaa mel ni mbaxalu daaray kokki safoo géej gi safoo yéet non man bëgguma loolu zem l'islam nanguwul lan xale bu jigéen defar ba mu baax di bëggal borom këram l'islam nangu na ko loo xamante nii sa jëkkër da koo bëgg ankay sa jëkkër loolu dagal loolu dagal naa loolu dagan naa loo xamante nii sa jëkkër da koo bëggee yaa ngi koy def sa jëkkër di gis ko di ci kontaan loolu l'islam nangu na ko tur su li wax nii moom lay wax ànduma ci ak moom gis nga góor dangay def yëfi góor jigéen def yëfi jigéen loolu moo am solo mais bu jigéen góor di dem bay def yëfi eh, jigéen àdduna changé na quoi ji góor warul tatouage jigéen moo ko moom te tatouage boobu ñuy wax sax suñu borom da ko sib suñu borom dafa sib xeesal yokk ay xef tatouage la xawma lu ñuy wax lépp luy yokk ci yaram suñu borom da ko sib baaxul waaw ñii nag dañ koy def seen jëkkër ànd seeg ñoom mais seen jëkkër nag xam ne loolu lislaam bëggu ko yëpp a ci yem lépp loo xam ne day yokk yaram lu bokkul ci yoram loolu suñu borom da ko sib baaxul daa am góor yoo xam ne lu neex jigéen neex na leen te àdduna demeewul noonu suñu borom boo juddoo ci yoon ci ci ci lislaam màgge ci lislaam da ngay xool sa lislaam lan la aayal ak lan la kii nga def loola loolu moo am solo mais bul topp neex neex wala bànneex wala len bul topp loolu da ngay topp suñu borom li mu wax nga def ko soo ko defee ci kàttanu suñu boroom di ci mën a jëlee lu bari mais li ngay jëlee fee ne amul njariñ jàpp nga ne nag moo am njariñ ci yow mais amul njariñ déedéet man sama jabaar du du tatouage du yokk mees ndégul ma nu mu tudd damaa xam sax nu mu koy waxee persil la xaw ma yokk la xaw ma du ko def parce que man bëgguma ko même su ko defee tim bëgguma ko waaw su ko defee dama koo yëgul te su ñëwee naane ko lii nga def nii baaxul su ko mënee bàyyi bàyyi ko su ko mënul bàyyi ma xam ne kii baaxul parce que sa jëkkër lu mu la bàyyi loolu ngay bàyyi da nga koy def. jamono léegi dafa nekk loo xamante bi ne gars yi ni ñuy seeyee mooy lu neex sa jabar neex na la te man doxewu ma noonu lu neex sa jabar rek neex na la loolu loolu loolu loolu du lislaam te léegi lu ci bëri moo loolu moo ci ëpp xeesal dem fii taxawaalu ba doyal um daal yàlla na ma yàlla taxaw daal mais daal adduna bi daal changé na daal. man fuddan bi laa choisi parce que moom moo ma neex fuddan bi daal moo gën a yiw daal si man tatouage bi bon li nga wax rek moo si nekk waaye nag yàlla rek a xam daal. a sore kattan suñu borom waaye lii moom xam naa moom yiw na daam koo xam man mag laa damay sol defar bi yiw daal moo ànd ak sama kii sama jëm loolu lay dëgg xam nga jàmm yàlla moom yàlla rek a xam daal moo xam lu baax xam lu bon te yàlla nañu yàlla teru tamit si lu baax boobu ñuy lu bon loolu tamit yàlla nañ si yàlla génne waaw dañuy am ay mais jigéen ñi ñooy yi moom ñu def wàllu tatouage bi ñuy tatouage loxo Ah, waaw yooyu noonu lañ ciy am mais souvent jigéen ñi la ñuy am ñi nga xam dañuy dañ leen di maye di def seen takk. ak euh, mag ki bëgg def fuddan pour euh, xadratul jumaa yeeg yooyu. non tatouage bi tam du à vie parce que nit moom day wax te yàlla tax euh, du mun a diire ay une semaine yooyu noonu bu fekkee koo xam ne xëy na ku mel ne bi du utiliser lu am eau de javel lu bari du dañ mais bu fekkee tatouage bee la bu crayon bi mun na dañ d'ici cinq jours affaire yooyu avant 5 jours mais bu dee fuddan bi la day xaw a yàgg si mag. parce que fi nga koy def doo utiliser lu bëri te daf dafay rafet daal ci boo taalalee sa loxo di war a wér de affaire yooyu noonu. waa lislaam moom mm, nit da ngay sa dëgg te yàlla tax ndax ku lu xaq kaanu mu ran xaw ma lu ci lislaam wax mais ci li ma jàng dégg naa ne fuddan dafa nekk loo xam ne ci suñu mag yi ñoom ñoo ko bëggoon dañ daan fuddan def ay tusngal euh, di ko taaralee seen loxo. ba ci ay poudre yooyu si suñu makki lañ ko jëlee xëy na ñu façon yi ñ ko doon defee ak ñun produit yi ñuy utiliser léegi moo nekkul benn. waaw xaw ma nag charia nag lan la ci eh, wax mais ci ba bu ma daan gis ñun bu ñu daan waaj mayee maye ñi ay temps daa woo def ay fuddan ak yooyu mais bi araab yi génnewee fuddan ba léegi ñu gis dafa rafet ci boo defee voilé comme voilé bi ñu jël léegi dafa yiw ba téye ko day rafet macha allah su ko xale bu jigéen defee après da ngay am envie yàkkamti <laughs> bis boobu yow tamit dal la ba nga mun fuddan charia moom lépp loo xam day des si yaram charia bëgg ko ndax dañ la ne carrément doomu aadama loo yokk ci li nga xam ne mooy bind bi la sa borom subhanahu wa taala bind rek yow contre l'islam nga def waaw su ma soñoon nag ñi koy def xëy na seen bëgg-bëgg bopp lañ ko defee xëy na nit a ngi sax def lu gën a pire loolu nit a ngi def lu gën a pire mais comme seen bëgg-bëgg lañ ko defee rek yàllaa xam ñun moom matuñu xëy na dañuy gis lu rafet rek topp ko nii fekk na mooy loolu mais yàlla baax na gis-gis yi nag wute lool bu ko ñi àndee bëgg am na ca wàll wa ñoo xamante ni bëgguñu ko waaye nag ngir xam ana lan la ci diine wax moo war ñu daal di doxantu ba kër imam Wade daal di koy dékk suñu micro yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla yónni na ko mu ñëw mu yónni jibril mu topp ci kawam mu laaj ko islaam laaj ko imaan laaj ko ihsaan mu laaj ko ñett yëpp mu tontu ko waaye bu mu ko mujjee laaj quatrième question bi mooy eh, mal mas'ulu dafa nekk attadri yow ma saa ndax xam nga yow ma saa yow ma xiyam ñëw loolu nag yonent bi tontu ko dafa nekk mal mas'ulu anha bi aalimin saa'il kiy laaj moo gën a xam ki muy laaj. kii laaj moo gën a xam lu muy laaj waaye yonent bi bu mu koy jox mandarga yowmal xiyaam buy ñëw bokkoon na ci yàqu-yàqu jamono bokkoon na ci góor buy nuru nur lu jigéen ak jigéen buy nuru nur lu góor léegi nag alxuraan dafa ne dafa xaraam ci nit muy def taxyiiru xalqillaahi maanaam ni la yàlla bindee nga xamante ne yàlla dafa ne euh, laqad xalaqna al insaana fi ahsani taqwim yàlla nee na maa bind doomu aadama ci ni ma ko bindee ni ma ko bindee noonu la dàqee yàlla nee na li ma yor ci ay mbindeef bëri na mais ni mu bindee doomu aadama noonu noonu moo gën ci moom te moo dàq moo rem mbindeef yi kon fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin yàlla nee ni ma bindee baax na waaw doomu aadama nag dem na ba nag bay ñam ñàmbaas ci bindug yàlla gi loo xam ne bokk ci mu loolu mooy mooy tëxiiru xalqillah mooy soppi ni la yàlla bindee soxna aram saa boo xeesalee aram na nit bu ñuul la yàlla bindee wala bu xees bàyyi ko noonu taa boo ci jéemee man-man ba soppi sa der dafay nekk lu xaram amul benn oustaz wala benn imam bu la ko mën a daganalal mënu nekk léegi nag tatouage boobu ñuy wax lan la tatouage boo xamante ni dafay toog ay fan mu mu dañ am na boo xam ne en vie la dootul dañati waaw buy toog ay fan ay kay mu dañ koy loolu tatouage loolu bu ko jigéen defee jigéen bu ko defee ba ba noppi pare dafa am euh, foo xam ne ci jigéen kenn du ko gis jigéen loxoom rek la war a gis ak kanamam léegi nag foofu li feeñ ci moom bu bu ko tatouage du nekk lu islam ŋaññi de waaye nag na koy won jëkkëram waaye nag boo defee taxyiru xalqillah maanaam nga tatouage sa yaram tatouage boo xamante ne dootul dañ ba yowmal xiyaam léegi yow sa xel lan la lay jox lan nga ciy jublu ndax danga nga bëgg gën a rafet wala da nga gën a da nga bëgg gën a branché wala danga bëgg gën a bokk ak lu mu ci doon dafay nekk lu xaram yonent bi dafa ne laana allahu rajulun al mutashabbihina wal mutashabbihat yàlla nee na rëbb naa ñi nga xam ne dañu dañuy nuru lu jigéen ci góor ñi ak góor yu jigéen yoo xam ne dañuy nuru lu góor léegi nag waxuma la tatouage moom yaakaar naa ni góor gu góor yi sax du ko def mais boo xoolee léegi si match yi nga xool championnat yi nga xool euh, télé yeeg ñi ñuy football yëpp dañuy tétawaase ñu am xaalis ñëpp dañ koy def léegi ñëpp maase nañu di tétawaase seen yaram non yàlla neen na su ma naka ñëpp def bu ko ñëpp defeet ci li nga xamante ne bañ naa ko du tax mu neex ma maanaam bu ñëpp di àndee di def loo xam ne man yàlla bëgguma ko du tax mu dagan bu ñëpp bàyyee fii li nga xam ne dafa dafa dagan di def lu xaraam du tax loolu xaraam kon tétawaase lu ñu la mën a wax mooy dafa xaraam jibril bu mu ñëwee ci sayyidna muhammad sa alayhi wa sallam ba muy wax ak moom ba ne wax ma mandar yowmal xiyaam kañ la ñëw mu ne ko antali dal ummata rabbataha boo demee ba gis doom bu jigéen wala doom di continuer wala di tourner di di di di conditionné yaayam wala papam am na wala amul di conditionné tëdd ba bu mu naaj sa yaay sañu laa yee wala sa pap nga gis ñi nga xam ne dañu dëkkoon kaw ga ñëw ci ville bi di tabax ay étage ñi nga xam ne dañ doon sàmm ay xar nekk ay milliardaire wala millionnaire ñi nga xam ne nag ay góor lañu di nur nur lu jigéen ñi nga xam ne ay jigéen lañ di nur nur lu góor leer na kon tatouage lan la fuddën day dañ day rus ba jeex mais tatouage du dañ moo tax boo demee ci téer bu ñu wax alxalaal wal fi islam day indi yooyu yëpp wax naa ko sànq mees dafa xaraam amul kenn ku la ko mën daganal xeesal dafa xaram tatouage dafa xaraam tifaaxan xam nga yàlla lu muy lu mu lu mu bañ moo xam jëkkër ji d'accord na ci wala jabar lan la war a xëncu mooy li neex jëkkëram te kaw mu neex yàlla il faut mu neex yàlla ba pare bu neexee jëkkëram mu gaaw def ko waaye li fekkee li nga bëgg sëy ci ginnaaw sëy ci ginnaaw am na jëkkër yu ko bëgg mais yàlla ko bañ est-ce que jabar ji war nañ toppa jëkkër ji ci loolu noonu déedéet dafa xaraam moo tax nit ki da ngay xaraamal lépp lu xaraamal waaye da ngay daganal lépp lu yàlla daganal soxna aram kon mi ngi noonu kon yaakaar naa ni ñu ngi leen sant di leen gërëm di rek loo xel nit ñi dañuy xuus léegi ci loo xam ne xamuñu ko mais tatouage moom pour ñu gàttal ko lu xaram la gis nañ ni léegi jigéen ñi sax génn nañ ci waaye góor ñee koy defal seen bopp ci ay kàddu imaam nag liñ ci mën a jàpp moo di tatouage bi nga xamante ni durée déterminée la yàqul dara ndaxte day taaral waaye nag bi nga xamante ni à vie la boobu lislaam da koy tere ba tey moom ci biir kàddoom mi nga xam le ni même bu ko ñëpp àndandoo woon doon def itam du tax mu daal di dagan ba tax na nag muy sàkkuwaar rek ngir ndaw ñi ñu daal di gën a xoolaat seen diine ndaxte style dafay tegu rek ci li nga xamante ni neex na sunu boroom lii nag moo nekkoon seen reportage du jour ñu leen di jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen sujet.